saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Lac de Guiers 2 ma yekkati lu mel ni xamee Boy Niang 2 Lac de Guiers 2 classe de De loolee la journal ba xëyee tey doomu De Gaulle ja Boy la Lac de xëy teg ko cib àndam càppaacoli bi dafa bëgg a taf-tafe yoon bi te du fi amee Boy Niang 2 va brûler les étapes noonee la ko waxee moom Lac de Guiers ba ko journal sunu làmb dalalee loolee la xëy yëkkati ci Boy Niang diggante Boy ne en tout cas Boy Niang dafa a tax mu tase ak Balla Gaye 2 Seydi ak Lac foofee muus fa naani ñeex moom bërki de moo njaay la doon passé examen fii ma freiné ko bu jéemaatee putuxlu ci bunt yi dana ko coûté cher boo waxee ñu naan Boy Niang te man daan Boy Niang yóbbu ma fenn daan na fi ay mbër ñu koy ŋawti ŋawtee mu ñëw ci man ma freiné ko ba ko laajee ci revanche sama tafaatin mu ne pare naa tëjalu ma kenn samay but moom la géant di bawol maa ko daan jël bu amul benn werante kon bu noppee ngir jël ndax leen di aj wala déet keroog ñoom arbitre yi ba ñuy jàkkaarloog CRD di commission règlement et discipline jël nañ la yoon may ñoom ñeenti arbitre yooyu ku ci nekk amoon nga juróom-ñetti question yoo war tontu commission ba bëggutoon dajale arbitre yépp di leen laaj ñuy tontu moo tax da leen tas benn ak benn waaye arbitre yi dañoo lànk ba tëdd ca ñag ba jël la yoon may la yoon may mooy ku ci nekk am nga droit assister sa morom ba jébbal ko waa CNG loolee nag alinéa bu article 44 bu règlement ñoo xam le ni mel bu commission de règlement et de discipline bi auditionné ba pare da koy jébbal waa bureau exécutif ñooñee ñooy prononcé génn verdict verdict boobee ñuy xaar arbitre yi nee ci jaaxlewuñ ci Babacar Diop may responsable arbitre de lutte sans frappe moom la mu xam mooy dañuy assumer suñu responsabilité mbir mi amuñ tig tiit amuñ ci jaaxle jàmm moom xool lay doxal carrière Boy Niang 2 ci ñu def dekkalaat 100 pour cent Pikine ba jàmm am fa ñu jàllee démb ci arène nationale dañ fay démb ci 54 secondes la ko Franc ci arène nationale jam production ci bile combat arène nationale bu doon rembet ñu ne tuutee des mu rembet la démb ci mobilisation yombul ñu defoon ci stadium bu Bakaaw ca Gambie en terme de mobilisation li ni mel la defaat démb ci arène nationale mention spéciale à production loolee askan wi bu ñu jàllee ci lit sans frappe ci Adrien Senghor ca 17e journée ba Batlen Siki moo daan Moussa Ndiaye fils de Batlen Siki hôtel Dior 2 la am ci final ba daal koy won boppam boobee fekk na ca galaa ca kër Waali Ndiaye booy joolaa di imposé ci kaw Abou Ndour bu dee galaa ba ca Mbamloog foofee déception la association ba amee samedi 7 mars lañ doon amal bile galaa waaye dafa ba def nañ seen organisation ba mu rafet woo nañ seen tambour major woo seen woykat dëkk ba génn moo waral tas làmb ja jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li a fës leen jox dig ba ëllëg incha allah